asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu waa as ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara seen mbokk Ahmadou baas di ziyaara bu baax sëñ Abdou Samad nag di ko ñaanal suñu borom defal ko tawfiix bu baax ah, démb ba tey noo ngi bëgg a yëkkati suñu kàddu àddu ci taxawaay bu am solo boobu yi nga xam ne amaloon na ko foofee ci mbirum sëñ Cheikh Baara Ndiaye yàlla dogal na bi muy dem sawu man mi àndan ci yoonam boobu Euh, yéene nag ji ko taxan a jub yéene ju rëy rëy la euh, te itam gis-gis bu yaatu te sori euh, ak yittewoo gu mu yittewoo mbirum yoon wi ak mboolem njabootu yoon wi yitte jooju moo ko buurloo te it moo ko jógloo ku xamit sëñ Abdou Samad xam ne loolu du gan ci moom tàmbalewut ci sëñ Cheikh Bara yàgg naa dem ci barab yu mel noonu di nemmeeku ñi nattu wàcc ci seen kaw wéttalikonte ak ñoom defal leen ñaaral leen digal leen ba noppi lu ca wàcc ci taxawaay ak jéego mu di ko def ba yàlla may leen aafiya may leen ak oyal euh, sëriñ Cheikh Baara it bi mbir mi ëgsee ci kawam la ci sëriñ bi digalan mu dox ko loola dox na ko ba mat sëkk jugaat itam ci ay jéego ginnaaw bi mu yëgee ne Cheikh Baara bàyyi na lekk ak naan ba laati kaaf mu jóg ci yitte ju mat sëkk wax na ab jullit la taalibib sëñ Tuubaa la ci njaboot gi la te jàpp naa ne su ma ko ñaanee dana ma may kon nag damay dem ñaan ko ngir jëmmi sëñ Tuubaa mu bàyyi grève de la faim boobu mu def lekk naan ba àndaat ak sagoom la ca des nag ginnaaw ku ne foofa ku ñuy lijjanti ga soobaanoon ñëpp nu ànd xaw lijjanti ko ba suñ borom génne ko foofee loolu moo nekk yoon wi te loolu moo yitte ji bi muy dem itam laaj na euh, ci docteur yi gréew euh, ba toll foofu ñàkk lekk ñàkk naan diir bu yàgg lan moo gën ci loo war a lekk wala loo war a naan euh, ña xam ne ñoo spécial ci wàllu woowu tontu ko ne ko bu amee kafe gu tàng mu jëkk koo naan wala lu mel ni Lipton wala yeni mel loolu bu ko jëkkee def rek leneen lu ci mën a teg incha allah dana dana baax waay li gën mooy mu jëkkee bu tàng daal moo gën loolu itam ci ak yittewum la ndax bëggula def benn risque kon loolu day wane tax taxawaay boo xam ne am na ko café gi fii la ko defaree ci Touba def ko ci barab boo xam ne du sedd day tàng bi ñu demee bay dugg ndakaaru sax bëggoon nañ ko suukar mu ne déedéet bu leen ko ubbi muy sedd bàyyi leen ba mu jënd itam tàndarma ju baax bu bari ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mënees na koo jëfandikoo daan daal li may ñaan sëñ Tuubaa rek mooy ñaan ko mu lekk naan ndax li nekk ci bàyyi lekk ak ci ay risque dafa bari ah, dafa bari te it doonut ku ñu war a euh, bàyyi noonu mu wéy ca déedéet euh, ak lu mën a xew rek la tax mu def ko xëy na xolama toll foofa waaye faw rek ñu ñu jóg taxaw te mu ngir taxaw ko ngir loolu mu dakkal ko ndax bëgguñu lenn di ko gàllankoor wala lenn di ko jot loolu moo taxoon mu jóg ba mu demee ba àgg itam yoon wu war a jaar rek la jaar bi mu gisee ak docteur bi moom moo ko xamal ne ko Cheikh Bara de dañoo am digal ndax yéen yéen yéenee sunuy kilifa waaye fii hôpital minitaire la ñu itam dañuy liggéey ak ay kilifa ah am kilifa yoon ñoo nu féete kaw te ñoo nu jox digal ginnaaw ñoo nu jox digal décision bi wàcc na defe ci ci bis boobu sax la wàcc wala ci démb sax mbaaru ko sooy jóge ca kaw daal ñu tere kenn egsi ci noonu. kon nag may may ma wax ak samay mbir daal di dugg ci biir si Abdou Samad taxaw ci biti di ko xaar ak noon ñi fekk nañ fa soxnaam si ko doon taxaw ñu def ab diir bu xaw a yàgg docteur bi génn daal di xam ne ne day wax dëgg yàlla laaj na ndigal ci kilifa waaye ba tey joxuñu ko ndigal ngir si Abdou Samad man àgg ci biir gis ko bal mayuñ sax kenn moo gis ko ba ci soxnaam soxna si laaj nañ ko kañ la ko mujj a gis mu ne ca démb sa day bi ma koy a gis daa nelaw te moom moo ko doon defar di ko toppatoo soxna si nee na dem na sax xam xàmmeetuma suñ baara dem na ba sax xàmmeetuma suma su fekk ñu ko mën a diw ca kaw wax ko daanaka du ma jàpp ne sax xàmme na ma kon loolu day wane ne état bu critique ci la toll bu bu xaw a doy waar maanaam toll na ci état boo xam ne bu bu xaw a bu doy waar la sax lu ñu wax ko xaw a doy waar ndax ku am sa soxna dem ba xam nga ne foofu fa nga àgg na si Abdou wax ko ne ko waxal ma say kilifa ne leen damaa ñëw ngir bëgg mu lekk naan te jàpp naa ne su ma jàkkaarloo ak moom ñaan ko ci sëñ Tuubaa mi bokk dana ma may loolu lekk ak naan ngir soowe ba kanam moo ma fi tax ñëw bañ dara gàllankoor loolu rek moo fi indi waxal ma leen loolu ñu may ma ma gis ko jox ko mu lekk jox ko mu naan waaye taxul ñu nangul ko lool def na yeneen i pexe ngir jokkoo ak kilifa ya nga xam ne sax ñoo ne ca kaw a kaw mooy ministère bi ak ña nga xam ne ñoo ci wàllu woowu waaye taxul dara sotti mu yendu dakaar te suba teel lañ fi jógee ndekkiwul këram man mii sama ndekki ndekkiwu ko bu ñu dikkee ba ci yoon wi lanu wutal lu ñu naan ñun ñëpp ñu ñu màndaloon mu wëlbati ko dem ndakaar toog yentu ba ngoon ba jant bay lang taxul lim bëgg mu man ko am mu door faa tàggutoo dellu siwaat fii ci dëkk bi ah, kon nag mbir mi noonu la deme noonu rekk la demee kon moom lim mu war a def lépp def na ko bi ko sëriñ bi yebalee bu njëkk dem na gis ak bi wax ko kàddu sëriñ bi ak bëgg-bëggab sëriñ bi ba mu yëgee ne suñ baara bàyyi na lekk ak naan ba dégg na ci information yeeg rajo yi ñuy wax ne dem na ba laatikaaf nangam nangam dal nay jóg gaaw jël ay responsabilité am taxaw fu mu war a taxaw ndox la mu war ndox te sëñ Tuubaa dong rek taxoon mu jóg ak yërmande xolam ji ko ñëpp xame ak yéenam yu rafet bëggul dara lu bokk ci yoon wi di am benn gàllankoor wala benn jafe-jafe ku am aw tiis bu ci bu xasee dugg am noppam jàpp naa ne rek moom balaa tëdd nelaw wala mu lekk ban ba suur wala mu naan ba màndi daa war a jóg dox ci ab jéego moom noonu la foofu la féete taalibe Sëñ Tuubaa yi xamewul foo bokk ak ci ko aju loolu lépp xamewul moom Sëñ Tuubaa ji rek moo ko tax a jóg weesuur lool te taxawaay boobu mu defoon nag kilifa yëpp la ko defal itam ndax kilifa yëpp la te ñoom ñëpp déggoo nañu moom déggoo goo xam ne saa yu ne ñokket jéego rek ñoom ñëpp am nañ ci ak moom rawatina sëñ Muntaxa mii nga xam ne daf koy liggéeyloo ci fànn yu bari ci ay mbir yu wuute wuute daanaka boyal ko ci biir yoon bi ngir mu jàppale ko ci liggéey bi ci fànn yëpp ak am sañ-sañub lépp lu mu xalaat luy jagal wala muy defar mu gaaral ko ko te it mësta gaaral sëñ bi dara lu dul ni sëñ bi ànd ak moom ca loola kon borom taxawaay bu yaatoo yaatu la bu ñëpp xam kom ni ko ñëpp xamee loolu nag moo doon ay yitteem ba mu demee it gantal nañu loola ñoo xam nag lu tax ñu gàntal ko boo gisee njort yi ñaaw diggante démb ak tey lépp ah, wax dëgg yàlla xalaat moom su noppee ñaaw noppee jëriñ boroom faw xel rafet ak ñaaw ndax ah, nit koo xam ne soxnaam sama yilif tem koy toppatoo mësta teqali koog moom dem na ba xàmmeewu ko ah dem ba mu nu ko mu nu koo gis ca waxtu woowee loolu it kenn du xam lu mu doon kon defoon naa ne ñi nga xam ne ñooy kilifa yi yi ngànk wàll woowu ci sama gis-gis ñoom ñoo war a ubbi boppi nit ñi ndax sëñ baara ci njaboot gi la bokk te it kilifa la yàlla ko ko def mbooloom baree bari aju itam ci ginnaawam mu bokk fu ñëpp xam kon ñoom ñoo war a ubbi xeli nit ñi li nit ñi yanu ci seeni xel muy jeexi jaax akuk jaaxle ak bopp yu tëju xaq la warteef la ci ñoom ñu taxaw leeral bu baax a baax baax tolluwaayu sëñ baara ak itam lu tax nanguwuñ kenn ak ci moom ndax damaa jàpp ne bu nekkoon ca prison ba it am am xaqi visite ñu war ko ñu war a may ñu ko war a gis ñu gis ko rawat na bi mu nekkee ci hôpital ba noppi toll ci arab but mel noonu nit ñëw koo xam ne néew damaa seet si ab malade ñu naan ko dañuy faj wala yëdu heure visite waaye da ne damaa fekk koo xam ne daa bàyyi lekk naan ba dara mën na caa xew ma fas yéene jàkkaarloog moom jox ko mu lekk jox ko mu naan kooku damaa jàpp ne ca buntu Dakar lañ ko war a nagatandoo kon ñii sàmm xaq ak yelleef ci réew bi ak ci biti réew war nañoo taxaw tem delloo si xaq yu mel noonu yi delloo si bu baax a baax xaq yu mel noonu ndax lu mën a xew ci àdduna dundu doom aadama ak wéram lañ war a jiital ci lépp lu ko yoon di toppe ak lu mu mën a doon ci àdduna rek sax baara rëyul nit naanul sàngara jaayul yàmbaa jirut alali jàmbur amul benn kirim bu mu def dafa am ay xalaatam rek yu muy gaaral loolu mooy li ñëpp jàpp wax dëgg yàlla loolu mooy li ñëpp jàpp leneen lu mu mën xew lu mu siq ak yoon ak lu mu mën a doon bakkanam nag wares naa may aw nitam xàqi sooy bakkanam ndax sooy bakkanam ak toppatoo ko ñoom la war te jàpp naa looloo war a tax ñu jël ko yóbbu ci hôpital mu génn ci asogam ne kon ba ñu yóbbu ko hôpital di ko toppatoo ko saytu kon nag buñ gisee wala ñu dégg koo xam ne jàpp nañ ne mën na ca loola dara te amul sikk sàkk ne sëñ bu jàkkaarloog sañ baara ñaan ko lu métti métti sëñ baara lam dara ko bàyyi may ko ndax sëñ baara taalibe bu gëm sëñ Tuubaa te yemalewoon jëbootu sëñ Tuubaa dara loolu mooy li nga xam ne moom kàddu yi daal ñun lañ ci bëggoon a wax lii ñuy wax nag seere lañ ci bu wér a wér ndax noo si suñu Abdou Samad noo àndi fii ci Touba dem ba Ndakaaw lam doon dox ak lépp ñu ñoo ko teewee topp ci gannaawam ànd koog moom noo àndaat ba ñibbisi fii itam defe naa bi ñuy ëgsi fii ci kër gi booba jant bi sona timis jot na koo xam ne ndekkeewoo sa kër nag taal sa oto jaaruloo fenn amoo jënn yitte dem ci ndakaaru gii dellu siwaat jant bi su kon la ko doon dox ñor na la fu mu lu ku xamit woon la taxawaay bu nekk def na ko waaye nag a ah, mu ngi noonu mu ngi noonu mu ngi noonu waaw kenn lu dul jàmm si Abdou Samad mos ta ñaan kenn lu ko mayut mos ta ñaan kenn lu ko mayut kon nag euh, bii mbir buñ ko gantalee ñoom kon ñoo war a génn informer nit ñi nag xamal leen lan moo xew lan moo xew ndax sëñ baar dafa àgg ci état bu ko kenn mënutul a gisee wala lu xew même bu fekkontoon ne àgg na foofa teel ñàkk a lekk ñàkk naan teg ko ko te bu lekkee naan loola saafarawu nit taxaw koo xam ne xam nga bu wér ne mën na koo tax lekk wala mën na koo taxa a naan kooku it yaakaar na euh, defe naa man ci buntu dëkk ba ko war na gatadoo mu ñëw ngir mu mën leen a le ci wàllu woowu ndax lu mel noonu amu fi benn yoon du ñaar waaw euh, Abdou Karim Wade bi mu fi defee loolu sëñ Sidi Mokhtar moo yëble ba ndaw la ñëwee indi kaddu kilifa nga façon si dafa lekk naan jamono ñooy waaw te am na nit ñoo xam ne buñ sigi ñëw ci mbir mën nañoo dem ba àgg ba dépassé fa ñu foogoon ne fa la mbir ma yem te lu ne mën na caa am lu ne mën na caa xew ñaanuñ ko yàlla nag noo ngi ñaanal yàlla suñ ba suñ baara suñ borom sàmm ko te téel ko bakkanam ak ko waxam te dimbale ko ba delloo si war ko ci njabootam mu continuer ay liggéeyam ak activité am ndax nit ku am njariñ la ku am njariñ la ku ko amal doomu aadama yi ndax diggante saafara ay ràgg ak dimbali aw nit ci seen yittey bopp ak seen i dépasse ak seen i nangam loolu dafa doy sëkk ab liggéey mu boole ci yor dara di jàngale alquran di wax na ay xalaatam ci réew mi loolu mooy li nga xam ne moom kàddu yi lañ ci bëgg a yëkkati noo ngi ñaanal Cheikh Abdou Samad suñu borom gën koo taxaw gën koo sàmm ci barkeb sëñ Tuubaa ba mu gën a mën a liggéeyal sëriñ bi taxawaaye ñëpp ñu ngi koy rafetlu ñëpp a ngi koy sant ñëpp a ngi koy ñëpp ñëpp ñëpp a koy kañ itam ci taxawaayam lii nag du ko décraser mukk da koy dolli rek yitte ndax la ko tax a jóg moom muy muy muy Sëriñ Tuubaa loola moom amut ci kaw suuf si lenn lu ko mën a wëlbati ba yitteem du doon Sëriñ Tuubaa moom ba faw yitteem Sëriñ Tuubaa dong la doon amut lenn xamut lenn geesut lenn benn bëgg-bëgg laa muy Sëriñ Tuubaa képp képp képp ko tax a jóg lii daal mooy kàddu yi ci bëgg a yëkkati muy kàddu yi seer ñu itam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.